tey dañ ñëwoon fii si makkaanu gaynde yi fii ci centre d'excellence euh, Youssoufa Ndiaye euh, ñëw nemmeeku si euh, équipe U20 u bi nga xam ne dafa war a jongante ak équipe U23 bu Burkina samdi bi di ñëw fële ca stade Abdoulaye Wade te Diamniadio mu nekk am match bu am solo pour ñun ñëpp xam nañ ko waajtaay bi door na bu yàgg. Euh, ak coach Demba Mbaye bi nga xam ne dañ koy rafetlu dafa bàyyi équipe bi nga xam ne moo doon FUS Rabat ñëw nekk à la disposition du football sénégalais pour indi wàllam ci tabax bi ñuy tabax ci football bi. donc euh, joué woon nañu ay matchs amicaux yoo xam ne vraiment gisoon nañu équipe boo xam ne am na taxawaay euh, keroog tamit ci jongante bi ñu def maanaam phase aller bi fële ci Bénin équipe bi xaj na amoon na taxawaay mais séntu woon nañu lu ëpp loolu parce que gis nañu ne amoon na place pour gagner. mais zéro zéro tamit defe naa sooy war a dalal équipe bi sa dëkk nekk na loo xam ne kenn du ko bañ tamit te teg nañu si yoon boo xam ne bu ñu mëtalee liggéey bi nañu qualifié te suñu tey euh, teewaay fii ci lu bare loolu la woon ñëw ñaax joueurs yi wax leen euh, jàppale bi ñu leen di jàppale que ñu ngi seen ginnaaw dinañ leen pouse pour ñu gagné mais ñaax leen aussi pour que ñoom ñu xam ne match bi si seen tànk la nekk euh, bu fédération defee li muy def encadrement bi wër coach bi ak euh, coach bi si boppam def seen wàlla ñu yàlla baaxee ñu joueurs yoo xam ne si seen tolluwaay mun nañu ne euh, macha allah ay xale yu xarañ lañu du ñu euh, noo xam ne guleet ñu ñëw équipe nationale dañu ñëw fii ak maanaam li ñuy wax expérience parce que jàng nañu déjà si U17 U20 joué nañu ay final joué nañu ay match yu ëpp pression match de qualification am na si ñoo xam ne tam ñu ngi joué si championnat yi gën a rëy fële ca Europe. ñëw dooleel équipe bi donc loolu rek war nañu may yaakaar que war nañu mun euh, bu samedi jël ndam li ñuy wax ko équipe bi solo bi nga xam ne moom lañ ko jox mën naa ne sax joxuñu ko benn équipe parce que li ñuy wax équipe charnière maanaam moom moo nekk ci diggante équipe yi tuuti tànk yi ak équipe A bi euh, rax ci dolli ñu nekk ci jamono joo xam ne dañuy waajal li nga xam ne mooy Jeux olympiques Paris 2024 ak kan U23 bi nga xam ne Maroc lay amee nga xam ne boo demee si kan bi si ngay qualifié pour dem JO euh, ñuy fàttali rek loolu def naa Sénégal xam nañ ko équipe bi nga xam ne tey moo ñu euh, représenté coupe du monde bii di ñëw te moo gañee coupe d' bu njëkk pour Sénégal loolu la ñu dooree woon dem Jeux olympiques def euh, maanaam participation bu mujj ayib ba quart de finale doog a door li nga xam ne moo tabax ba ndam li ñëw fële ca Cameroun ay weer yi la ñu génn donc équipe bii boo xoolee xaar kanam bi loolu la ñuy jox parce que potentiel am. Euh, xarañte joueurs yi daf ñu may yaakaar muy ñun waa fédération aussi ak direction technique bi entraîneur yëpp euh, que jot nañu amaat benn génération bu bees boo xam ne mooy waajal ëllëgu équipe A bi te ñoom ñii ku ci nekk ci ñoom am nañ yaakaar bu ñu continuer ci compétition bi di gagner dinañ leen gis si si euh, ay jamono ñu néew ci équipe A bi mais pour loolu il faut ñu continuer di def ay ay jéego di gagné te donc match bii nekk na jéego bu am solo parce que moo ñu yóbbu dernier tour nga xam ne moo ñu yóbbu kan bi te mu nekk si euh, sama xalaat loo xam ne c'est à leur portée wax nañ leen ko. rappeler leen aussi que Sénégal léegi dafa euh, change football Sénégal dafa changé demin parce que léegi ñëpp xam nañ ne équipe yëpp dañuy dox ci loo xam ne. Euh, mooy ñun suñu wootee mooy maa ngi ko wuti ndam li fu ñu dem dañuy jéem a gañe te ñoom ci loolu la ñuy euh, wéy donc defe naa xam nañu leen di xaar te am nañu yaakaar bu baax a baax baax que ndam liñ leen di séentoo euh, samedi dinañ ñu ko jox mais rax ci dolli en mars dinañ ñëw ak suñu doole yëpp pour mën a gagné équipe bi ñu war a taseel pour dernier tour bi comme ça coach Demba mbay ak staff am mun yóbbu suñu équipe national pour ñu wuti place bi nga xam ne mooy place su. qualification Jeux olympiques Paris 2024 ci biir lool nag bu ñu demee kan moom comme léegi dañu ne man ko wuti ndam li fu ñu dem rek dañuy wuti ndam bu ñu qualifié mu bunta pour jël coupe bi pour la première fois en catégorie universitaire coupe d'Afrique bi dinañ ko def incha allah mais lii jotagul euh, nañ ko teg li ñu def li ñu nga xam ne moo jot léegi mooy lan euh, gagné euh, Burkina qualifié xaar vainqueur Mali ak Rwanda bu ñu ñëwee tam ñu def. li ni mel qualifié waat pour dem Coupe d'Afrique. bon ci wàllu pelouse bi li ñu si mun wax rek ne mooy ne euh, ñëpp xam nañ ko stade Abdoulaye Wade euh, stade yi gën a euh, yàñña yi gën a maanaam taaru ci Afrique ak ci ci àdduna si la bokk mais jamono ñu tollu dafa fekkoon mu nekk si entretien maanaam xibaar bi que foofu la ñuy joué match U23 yi teeluñ ko xam parce que ci diggante bi CAF daf ñu ne il faut ñu jeexal travaux yi nga xam ne mooy stade Lat Dior. bu ko jeexalee ñu mun ñu jox maanaam li nga xam ne mooy homologation maanaam euh, kayit bi nga xam ne mooy mandarga ne stade boobu mun na euh, dalal ay match internationaux donc loolu xëj na mooy nekk jafe-jafe tuuti bi nga xam ne gàllankoor bi nga xam ne euh, coach Demba Mbaye ak joueur yi nañ ko am parce que dañu defoon entretien laal tuuti pelouse bi mais dem nañu nemmee ko xalaat nañ ne dinañ fa mun jouer parce que amuñu choix defe naa loolu Euh, sax moo tax ñu bëgg mu am yeneen terrain Sénégal yoo xam ne dinañ ko homologué te ñu ngi ciy liggéey parce que euh, euh, ministère xaati xaatimoon nañu benn convention boo xam ne dañuy dënk Lat Dior pour que ñu mun a yeggali travaux yi pour mu am homologation boobu dinañ am ci boobaa ñaari stade yu ñu homologué nga xam ne suñu tuuti tànk yi ak équipe yeneen équipe yi mën a jouer ci stade Lat Dior équipe bi ñu bàyyi ñu baaxee ko stade nu mu tuddati Abdoulaye Wade wala sax bu fekkee ne nag am na match yu match yoo xam ne équipe yooyu dañ koy joué ñu mun ko def donc li am solo daal am nañu yaakaar bu baax ne euh, état pelouse bi fu mu nekk du nekk gàllankoor si ñoom et que euh, joueurs yi dañu mun adapté wu pour mun def match bi ñuy bëgg a def entraîneur bi tam dina mun teg euh, li nga xam ne mooy schéma tactique am sans gàllankoor pour que ñu mun a am ndam bi ñuy séntu samedi.